Wonderful. di leen di nuyu bu baax a baax di leen bëggee di am mbégte ak kontaan mbokk yi di jàkkaarloo ak di àndaat ak yéen. ila de musu ko min ba defé mari bu jot and ak yeen di begalen di ak yeen ci lamb ya legi ciow ni nga xamanteni mbokk mom la tambalé ñu wone lamb ñu ni ci do tambalé na lamba ñu neex. yaa mën yaa am doole sa waay mën nga xëpp. ngeen mooy li muy wax mooy Doudou Sané bokk ngeen bokk xale yi nga xamante ni ñu ngi yëngal làmb muy def lu am solo ci làmb bokk yi dafa bokk bis bi nga xamante ni moom la jàmm production woote. surtout le 25 décembre. le 25 décembre bokk ci les dates postures xalaat yi. sama gars yi ñu ngi en direct tàmbali nañu. ñu ngi en direct tàmbali nañu. le 25 décembre mbokk yi. Bou Siteu ñu ngi en direct tàmbali nañu comme date yi nga xamante ni nii lamb doon ko fàtte 25 décembre bokk ci bis yi nga xamante ni nii bu ñu ko waxee wax dëgg yàlla di ngeen xam ni mbokk yi bis bu am solo la coow li fi am yëngu-yëngu yi fi am yëpp mbokk day mbokk yi day walee ni saison bi tàmbali na te bu saison bi tàmbalee comme ni ma leen ko waxee léegi mbëri seen yaram day xasal mbokk yi jàmm production moo ñëw ci bis bu am solo def gala de lutte tëggul benn combat wala mu tëgg yeneen combat yu ndaw s'il vous plaît les gars déglu leen tëggul benn combat bu ndaw wala mu tëgg benn combat kese dafa def gala bu ñu nekk gala de lutte mbokk yi dañoo boole ndaanaan yi nga xamante ne nii yu xarañ lañu doon ñu boole leen ci bis bu ñu leen nee bisu le 25 décembre ñàkk jëriñu moo koy bëree ñàkk jëriñu def si làmb lu kenn dootul laajte ñàkk jëriñu def ci làmb lu kenn dootul nattable doon champion bëre ci génération façon boo xamante ne nii bu ñu leen waxee nii ñàkk jëriñu mbokk yi bëre na ak ku ñuy wax John Sina daan ko bëreeg Mbaye Tine numéro 2 daan ko bëreeg Woutenkel.